wax ci dernier cas bi nga xam ne moo ci des ñu mën a tëj yëkkati euh, muy kaawu ajaa Diallo am na ñu bëri ñuy wax naan Adja Diallo TikTok am daf ci dugal benn euh, vidéo boo xam ne vidéo bi viral parce que la ci sol la euh, su ma mun naa la réalisation war na am image yi muy que ni kii di ajaa Diallo wala mu ngi noonu lii la sol dugal ko ci TikTok ñu bëri di ko critiquer mu doon bëri boo xam ne dafa transparente ah, ñëpp di gis maanaam loolu ñu tuddee saint ci tubaab ñu naan ko ween wax dëgg yàlla critique yi nag bari na ci ay commentaires et tout ça ba ci presse people bi nekk ci réew mi jël nañ ko relayé waat ko ñu bari di ko wax naan euh, moom li ñu koy critiqué dafa dafa bëri kon war na di moytu di sol yii nii Jimbori boo mhm. xoolee lii rek lan ngay wax lii rek. bii mooy kaay leen. kaay leen lan. Hmm? kaay leen lan. ah song ma. ah man de bu wala dun moom. moom warul woote bu ne kaay la ñuy dem dina bëri de. réew mi yëpp dañ dem de. waaw non tey benn affaire dafa am. Ah. xam man dama gis ñu siiw nii ñu si ëpp. gis naa si benn waykat taayale moom moo jékki-jékki sax génn si kii bi naan tas naa divorcé naa amatuma jëkkër loolu mooy ñëw leen ci man am na wala amul tamit xam naa lii moom bu ko nit solee attan koo génnee ci réew mu toll ni senegaal ak ñu fi nekk jaañaar lan nga wax nit ñi hmm? Hmm? waxal ah. xam nga tey jigéen dafa am signe boo xam ni su ko defee ah, mhm. ku lay yab ci la lay yabe ku lay ñeme ci la lay ñeme du dëgg te siin bii dafa bokk ci ku la warta yab yab la du dëgg te tamit dafa naa moom am na doom yoo xam ne ay maam jaara lañ leen ah, tuddee nangam nangam yaa ngi dégg ah, man dama ko bëgg rek personnellement mais bëgguma sax ñu koy critiquer waaw non waaw man mais na moytu yii daal yii non bu doon maay moom non non bu doon man maay moom hmm. am na yoo xam ni eh, duma ko def ba pare ma wax la dara carrière est-ce que xam nga sa carrière yaay hmm. yaay day toll foo xam ne lépp lu mu def doomam la ko defal. Mhm. xam nga loolu. Mhm. nga boo bu tolloo fii lépp lu mu def doomam lañ koy wax. Mhm. am na wala mais moom ah pour man booy def nii bu sa yaay defu la ko bu ko def say doom. parce que la fait nga simmeeku sa doom maam jaara wala keneen bu génnee ak ay moroomam buñ ko wanee lii lii da day rus du dëgg. Ah. xay na moom bàyyiwu ci xel mais bu lii daf ci war a gën a bàyyi xel. Mm. parce que am na noo xam ne bu la ko yàlla bindee. yow wala mucc nga ci wane sa awra parce que jigéen nëbbu awraam yaa ngi dégg bokk na ci ji xanaa am loo jigéen bu jekk xam nga ci lan la bokk mhm. nëbbu sa awra ci jekk ci jekku jigéen la bokk xam nga loolu mhm. que xoola nga feeñal sa awra ci njëkk di jigéen la bokk parce que am na ñoo xam ne saa boo feeñalee sa awra yenn yi di feeñ am na ñoo xam ne moom ñàkk nga leen dootoo leen am mhm. mais am na ñoo xam ne saa boo feeñalee sa awra ñu ngay am ba tax na ño boo amee ñooñu tamit suñ la dóoree mbaa ñu def la yenn yi ngay ñëwaat ci réseaux sociaux bi naan jëkkër bi ma amoon daf ma doon dóor mhm. daf ma doon def lii ma doon def laa mais kon yow li nga wane ñooñu nga soxla ñiy dóore parce que gis naa benn vidéo bu mu doon wane ni ki mu doon sëyal daf ma doon dóor daf doon lii boo wanee lii ñiy dóore ñooy ñëw mais boo muuroo ñi ñiy sa ñiy wodd jigéen ñooy ñëw ñiy sagal jigéen ñooy ñëw waxal rek waxal rek képp kuy dóor jigéen soxla soxlawul jigéen bu yiw dóorkatu jigéen soxlawul jigéen bu yiw bu yiwa di la soxla nga xam ne dangeen ngeen di mbëkkante mel ni ay gaynde lool la quoi ngoone ngoone ngoone waa lii moom ni ma ko gisee rafetul xam nga jamono jee yaakaar naa ne ci bësu Mia gise bi lay bëgg a dugg <laughs> parce que boo xoolee tax ñett waaw benn ci Viviane defoon na ko moom comme bosom sax xam nga Vivi boo nee sax ah, Mia sax Mia sax moom macha allah dafa xaw a <laughs> jaañ jaañ rafet na waaye na jaay ah! xam nga Mia sax boo xoolee tax xaw na sama montre bi daa rafet de sama montre bi ak rafet transparent na sax mais am na soutien ci biir <laughs> parce que boo xoolee comme moom ni Viviane sole woon rasulullah li daa rafet noonu la ko sole mais jigéen dafa am loo xam ne tay yow dindi lii ci télé soo demee ay doom yi nga xam ne ay kilifa lañ te Adja Diallo am na ay doomu kilifa oh. jur gu macha allah ku mel ne euh, ku ñu ko waxee Serigne Saliou ak Mame Diarra Bousso tey boo demee ba jur ñu mel noonu yaakaar naa ne yow kilifa nga boo defee sa bopp kilifa xalaatal na ni nga jur ay ñi nga jur ay kilifa lañ te jigéen nga te lii boo ko jolee posté ko ci internet mooy li ma la wax rek toujours la la euh, l'apparence rek tey ji boo solee ñoo xam ne mooy loolu yaakaar naa ne waddal tuba yi ngay gis ak maanaam yooy ñëw maanaam ak ñeneen ak ñeneen ñi ñaama gën a xam nampalog yi ñooy wàcc si waddal katu tuba yi ak yooyu mais jigéen boo bëggee tey jaayu ba jar mooy li ma la muur muuru terewul kenn jar tey ji mën ngaa muur say car cër ba mu baax te di nga jar mais lii boo ko solee dantelu kase nga toog defoo ci takkoo soutien takkoo dara soo takk su takkoon soutien sax maanaam yaramam yëpp day feeñ fam loo xam ne moom waru ko mu ajaa yaakaar naa ne référence te Adja dootul xale war na mën a xool bu baax lu muy sol di génn ci réseau sociaux yi wala dara ba yaakaar naa ne Sénégal ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko estimé ndax beautéem ñëpp ko bëgg Adja man mi di waxante daf maa neex man Adja Diallo rek laa bëgg mais na xool nag yi muy sol moo wax dëgg yàlla moo gën a rafet tax jigéen da ngay toll foo xam ne dootoo wane say jër boo demee bu jur ay doom moomatoo moomatoo sa bopp sa njaboot googu ñoo la moom ñoo la war a xool ne la yaay defal ni defal naa kon njaboot gi màgg guñ ba tool foofu war na mën a xool ni muy def mais yaramam bii mu bàyyi si biti takkul si ceen takkul dara maanaam ci seeg di génn wax dëgg yàlla man je t'aime je t'adore s'il te plaît évite ça parce que quand tu as mal au cœur moi aussi j'ai mal man sax bëgguma woon bëgguma daal sama xarit bi daa baax yàlla nga wér am jàmm ah évite ça merci à toutes et à tous jërëjëf Jimbor yi ñu jox la rendez-vous incha allah jeudi ak mon ami mon frère Ali ngoon yow tamit jërëjëf kontaan nañu ci a baax waaw kontaan nañ ci ñuy béggee ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo doon seetaan ku mel na Penda Joon Penda Coon Ami Njaay Jaata ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal di leen béggee leen Zafal ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax dëgg rek kay dëgg ñoo tamit ñu ngi lay béggee macha allah di nuyu ñëpp ah toute la famille Dia nekk Grand Dakar sama bàjjen Khoudia Dia Fëri Dia Faama Dia macha allah Thiendou Dia sama papa ñëpp maa ngi leen nuyu di leen sagar di leen béggee góor a ja fàttewuma ñëpp sama rakk yooyu macha allah borom Paris la France ngay soxna Dia maa ngi koy nuyu gaajo ñëpp toute la famille su ma limee damay jóg. Ah, ma chérie mon amour mon trésor sama lépp awa maa ngi nuyu. de passage ñu nuyu la bu baax bég ci bu yow bu baax a baax ci ni nga ñuy toppee fële ca euh, gorom jërë ngeen jëf donc rendez-vous incha allah jeudi ngeen ci ah. ànd ak ak euh, ki nga xam ne moom moo di Ali ci bi la émission di topp yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di am info yu leer ci people sport politique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 Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar